kóllëre bi macha allah di la bàyyi nga nuyu askan wi di la bàyyi it nga jote waxtaan wi ci kanam mu gën a yaatu ñu bàyyi la rek nga nuyoo. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi imanin wa ihsanin ila yawmi ddin soxna Aïcha ñu ngi lay delloo nuyo ak ziar di boole sa nuyoo ak sunu nuyo di ko jëmale ci bépp jullit ci biir réew mi ak lu génn réew mi ci baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf ko defee nag gis nga suñu émission ni mu tëddee mu doon waxtaan woo xam ni dafa yaatu lool du ñu bàyyi dara nag bu ko defee rek boo ñu ko mayee ñu dugg ci wax la rek boo ñu doon wax sa cosaan lan nga ñuy wax. Euh, ñaare de fuñ ma masa laajee lu ni mel dama naan rek ndongo daara léeg-léeg ñu dem ci barab ñuy def looy conférence. Mhm. bëgg ñu. ñu wax kenn mu wax ñooy ñan wala uh, ki toog kan la mm-hmm. bu ñu ma ko laajee rek ma naan rek ne leen rek ndongo dara la bu toog <laughs> incha allahu taala fas yéene waxtaan mm-hmm. waaw mm-hmm. dëgg la ndongo daara boobu am na solo waaye léeg-léeg ñi lay seetaan wala am say sopp dañuy bëgg di xam bu baax boo dee tey ne bëreet rek du dugg biir Sénégal fan fan ngay dem fan ngay dem fan nga xam ne fan ngay dem di féddali sa kóllëre ki waajur yi fi ma cosaanoo mën naa wax ne ñaari dëkk ñoo ma séq benn bi fii la sorewul Ndakaaru Tëngéej la ca fa ñuy wax cawleen but bu euh, bi ci des la mhm. bu dee bu njëkk bi fala sama wayjur dëkk sama baay góor gi Ousmane Gueye bu dee dëkk bi ci des Tuyaawan la fa sama yaay dëkk mhm. ak baayam ak maamam bu dee fi ma juddoo la man mhm. fii la ci Médina gi rue 21 angle 20 le 19 novembre 1949. macha laa juddoo fii ci Médina gi fi laa gimbe it fi laa yaroo et fi laa màgge bu dee fi ma dëkk léegi nag fii ñu toog nii di ko waxtaane fii la ci waay ci fi ñuy wax amoo siis dëgg la dëgg géey ñu daal di nag ñëwaat ci parcours bi nga xam ne wax dëgg yàlla itteel nañu ndax euh, bu weesoo mm, cosaan wi jaar nga ci ngóonete ci xale ban façon xale nga woon <laughs> xanaa ni ñëpp jaare ci xale rek ndax kenn du jékki-jékki rek ni maa ngi moom mais <laughs> dañu gis boo gisee ñuy laaj loolu ñu bari dañu lay bàkkee yar yaru nyi nan imam musa kérok rek Oustaz di sa gay mi ngi koy wax neysan nuyu mom itam mu ne boo ak mom wo yarul sax di nga yaru donc kon lolu bu la ko ñep sédélé ñun bëggon nañu xam ñi nga xam na ay tout tank lañu te di la xel nan la mëna def ci xalé ca bañ ca tollu yow na nga defoon buñu ko jëlé ñom dañ ca mëna a dolli lañ leen yare pour mëna yaru ni yow macha allah mm-hmm. waaw oustaz Hadj Idrissa mbaaxam gi ci moom rek la wax jëme ko ci ñun waaye lépp ci ci moom la dellu et wax na ne mi ngi gane àddina fii ci Medina e gimbi nag yem ci keppaari ay wéyjur sunu wàllu baay ak sunu wàllu yaay gimbi rekkit sunu baay dalal ñu alquran moo nu jëkk bindal ci àlluwa baa siin mimara ci ñaata at juróom-ñaari at ci fii ci Medina mm-hmm. yàggul tuuti mm-hmm. mu yóbbu ma fii ci kër maam Cheikh Al Hadj Abdoul bii ci. Gueule Tapée am góoru yàlla gu baax gu mën alquran. goo doon wax sëriñ Modou Marème Touré radiyallahu anhu doom la ci maam Serigne Hadi Touré. Mhm. radiyallahu taala anhu maam Abdou joxoon ko fa daara moo sës ca kër ga boo demee tey ci kër gi. fa jàkka ja nekk. Mhm. te sunu baay sëñ Maodo si. wallaay amee liggéey ba def ko fu mu mucc ayib lool. wallaay wallaay. foofa moo nekkoon daara ja. baraaga fa nekkoon ñuy jàng ci biir kër ga. Mhm. alxuraan bari woon nañu lool nag. Mhm. Eh, ñu yàgg lool tamit. ci loxoom moom Serigne Modou Marème Touré. macha allah am na sunu magu daara yu fa nekk lool imaam. imaam Khalifa si ca Tuyaawoon. dëgg ak rakkam bu ñuy wax sëriñ Abdoul si maam du lañ ko tuddee. dëgg ak beneen rakkam bu ñuy wax sëriñ Maodo si. ak ñeneen. imaam bi nekk tey ci Bambey di imaam Alhaji Khalifa Tall mooy magu Alhaji Abdoul Aziz Tall mi ci présidence. Eh, moom it ci sunu magu daara yi la bokkoon. moom nag fekkoon nañ ko. mook ñi ma tudd demoon nañu ba jeexal daanaka bay toppaatuwaat bay jàng xam-xam ñun nag ñoo nekkoon ñu ndaw ña yàgg nañ fa lool tamit ba fa la ñu jàngee alquran fii ci euh, ndakaaru gi ci repomander nga nekk daara ja Gueule Tapée ba ba ban tolluwaay ci at euh, nekk nañ fa diir bu yàgg mhm. ba ma ca jógee ci Serigne du Marème euh, sama wéjur yóbbu na ma ci keneen ku doon jàngal alquran euh, ku ma doon jàngal arab nag mhm. ak euh, téere fiqiyeeg yooyu le ak naxwoog mhm. yi ñuy jàng ka ndongo daar yëpp di jaar daal mhm. kooku ki ñu ci tàggat du kon wax góor gi al oustaz alxaaji adama jonn booba mi ngi nekk fii ci jumaay cëriñ jumaay cëriñ jumaay cosaan la jumaa ju yàgg la fi mhm. dañoo tabax jumaa ji tabax beneen école boo xam ne dafa jànloog jumaa ji mhm. booba ci jamonoy maam alxaaji Ibrahima Diop grand sëñ de Dakar la woon dégg nga euh, Adama nag mhm. ñu jox ko école boobu Oustaz Adama Jonn góor gu bari xam-xam te mën a jàng mooy papay Gris Bordeaux ndeysaan góor gu bari xam-xam te mënoon a jàng te mënoon a jàngale yit waaw foofa tamit ñu yàgg ci loxoom mhm. ba ñu fa jógee la ma sama wayjur booleek geneen góoru yàlla gu baax gu ñuy wax al oustaz alxaaji Malick Guèye ca Thiès ca quartier ba ñu wax R100 moom nag doom la ci Serigne Alioune Guèye waaw jàllantu yooyu daal dégg def nañ ko def nañ ko waaw yaay maam bu fekkee ne jaar nga foofu doon ndongo daara façon yi ñu gis léegi ndongo daara di di mel façon yooyu nga fa daan nekke walla da yënguwoon wala danga nekkoon ndongo daara bu dal bu concentré ban façon ndongo daara nga woon <laughs> eh. ci ku juddoo Medina ca jooju jamono ci ku juddoo Medina jamono mm-hmm. yàlla dafa dogaloon nag ci ñun mm-hmm. eh, dañ daan daawu ñu yendu ca daara ja mm-hmm. waaw fu ngeen daan nekk bu ñu wàcceen fi ma dëkkoon fi sama wayjur dëkk soriwul ak daara ja dama bokkoon ci ndong yi wàcc di ñibbi di ñibbi waaye ànd ak loolu it mhm. ndong ya fa daan des mhm. te daan yalwaani mhm. di lekk nax loolu ak daara ñoo ànd bu ñu ñëw jàng si fekk ñu dajale ya ñu yalwaani woon dégg nga jaxase ko nag war koo tàngal pour ñëpp ñu bokk ko lekk loolu tamit lekk nañ ca ba tàyyi xam ni dangay boole ceebu jën beeg suppu kànja beeg suluxu beeg ceebu keccax beeg mm-hmm. yëpp lañuy ñuy jaxase tàngal ko ci benn booli bu mag mm-hmm. Mm-hmm. ñu wër ko tabaarakallaa jàng ca lekk ca daal d'accord waaw léegi daara ji amoon na waaye gis nañu ne si sa biir yi wax dañuy sentir ne que mel nga ni ku dem daaray tubaab yi mhm. noo lu am la walla bu amee noo ko daan allié noo ko daan boole euh, am na sax mais dañ ca yàggul yàgguñu ca génnaat ca delluwaat daara ja fa tabarakallahu ci daara ji mhm. jamono yooyu euh, dañu daan gis xale yu dëkk peut-être Médina daan nañu dem ay géej di def ay petit di rëcc daal di def yëf est-ce que daan nga def yooyu. Eh, li ñu yàlla maanaa gënoon xiir nag. Mhm. ci yooyu jamono. waaw eh, am na benn làmbu mbappat bu ne woon ca bayaalu sànca ba. Mm. bëggoon nañ ko lool nag. jamono yi mbay ñoom mbay géey ak ñoom. déedéet jiitu na. jiitu na jamono ñoom mbay gi. Mm. jiitu na ko booba. maa ngi ciy fàttaliku mbër mi nga xam ne dama ko bëggoon nag lool. nelaw na sax yàlla na ko yàlla dolli leer ak ki njëggal ñu koy wax yuusu Dieng. Youssou Dieng. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa nekkoon sama mbër ma bëggoon ko lool nag. mbappat ma ma ca sanc ba nag. Mm-hmm. da ca daan ñëw ànd ak ñamin mbër yu bari. ay ay ay Fallay Balde. booba defe naa mi ngi soog a ñëw Fodé du suba. yal na yàlla boole leen yërëm ñoom ñëpp yooyu daal daan nañ ca football nag moom masuñu ko mën waaw masuñu ko mën d'accord am na solo mais dama bëggoon ñu taxaw tuuti ci li nga xam ni moom ngeen daan dundee ca daara ja soo amee seetlu ca daara daaray gone démb ak tey rawatina ci yooyu nga xam ne dégg naa amoon na barke ba ca bu ci nekkoon ngeen daan ko jaxase di ko lekk ban way ni après les années nga am ci lool ban ban way nga ci am ban gis-gis nga ci am ni ngeen daan bolo nek ben daal di jaxase lek gi lek tabarakallah barke ba ca newon ñu koy wax. batay mhm. yang koy japp ni mo ne te lolu est-ce top na manam at us ni batay daara mom barkem mhm. du du teqali ak mom deug da wala kulli halin mhm. barke daara du teqali ak mom Euh, dégg naa ci ki ma yaroo ci keppaaram mm-hmm. muy sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si radiallahu taala mu tudd daara ñetti yoon dafa jëkk ne daara ñagas na mm-hmm. jur jàmbaar mm-hmm. dellu ñagas jur xalaatkat daara ñagasati jur jaamukatu yàlla mu wax ni ñett di kenn di kenn di ñett ci ci ci waxinam yooyu la bu dee ñett di bu dee kenn di ñett nag mhm. loolu dafay dellu ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax daara mhm. du neex yooyu ñuy jàppe ay mettita ki naqar mhm. dégg nga ay tiis am na leneen lu muy juri bala nga koo xam nag nga màgg maa ngi fàttalikoo bindal nañ ma bés booba ñu ngi bind ci àlluwa mm. da daan am àlluwa joo xam ni mm-hmm. daanaka sax yéenay xaw a tolloo yàgg àlluwa ja ndax ni ñu lay jàngale alxuraan yi noonu lañ lay jàngalale bind xam ni dangay jël soos daa dañ daan dem ci marché bi mm-hmm. euh, këwdir yooyu ñu daan toggee ci matt mm-hmm. ñuulit ya ñu di ko xoos buñ ko xoosee dégg nga am nuñu ko jambe boole ko nox ak dakande ak le ut bantu xat mm-hmm. yett ci khalima mm-hmm. boko yette ba mu jek nga nga xar ci digg bi ni pour nonu nonu plim di meuna di di di bindo ci nga dan sa bop nak mm-hmm. bu ba je fesse tombe nga mokal ba nga tari yep nak boy bindat da ngay raxas ba je gis nga fañ dan raxas allu ya sax mag ña xam nañu ne barkee nga fa daan nañ fa am luñ fa daan jëlee di ca saafara yu bari mais yu mel noonu léegi daanaka mën na am amatul ci ndakaaru wala boog bariwul maa ngi fàttaliku bis sama wayjur dafa dafa dugg si rek fekk ñu may dóor dóor yu metti fekk mokkalu ma woon nag mhm. mokkalu ma woon daan nañ la dóor daaru ku fa dem ñu dóor la waaw ku fa dem ñu dóor la daañu nu dóor àll ba sax daañu na ko xaañ ci bopp hmm? <laughs> daara mel noonu nag waaye hmm. yooyu yëpp nag la barke la doon pour bëgg nga mokkal bi hmm. sama bi ma déggee nag mu nuyoo ni asalaamaaleykum fekk dóori metti nag ma ma xaw ne ma sama xol waaye sëriñ bi ma doon jàngal dafa dugg ni ko waaw góore diw <laughs> ma di fii pexe amatul fan lay muccee waaw waaw <laughs> waaye yooyu yëpp nag da ngay xam ni njariñ la ndax ku jaar daara mhm. faw mhm. di nga jànkonteeg mhm. tiis yu ni mel di nga jànkonteeg tiis yu ni mel te ci daara la bokk te dama dégg léeg nga dégg sax ñu ci euh, indi ci ñu jamono tëddeeg di ni doxee xëj na yu bari sax wàññeeku na. dëgg la mais gis nga yu bari yu wàññeeku yooyu le mm-hmm. wàññi na yu bari na yu yu bari wàññeeku yooyu le wàññi na yu bari. Mm-hmm. ci te dafay feeñ. Mm-hmm. dafay feeñ ca ñawoon ak ñu léegi ñi. dama dégg ci ki ma tudd léegi sëñ Cheikh. radiyallahu anhu mu ni jàng karaté ak jàng box hmm? pour mën ko ku mu ku mu jaral ñu ñu wekki sa ŋaam nga muñ ko waaw téere bi yàlla wàcce nag alquran alkarim warul jar lu ëpp loolu sax pour boo pour bëgg nga mokkal ko bokk sa karaté rek pour nga jàng ko jar na la ñu gaañ la ci bakken toj sa bët wekki sa ŋaam nga muñ yëpp pour bëgg a mokkal waaw kon téere yàlla bi nag bi nga xam ni daf ko wàcce mm. mu tukkee ca moom mu jox ko jibrilu alayhi salaam mu ñëw fekk góor gu waajal boppam mhm. boole sidit yaa ngor ga peese ëppewul fenn yéesewul fenn muy sidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ba mu jëkkee wàcce ci moom lu ko wax iqra jàngal ngay gis ni julli li muy màgg màgg màgg mhm. iqra ñëw na lu yàgg te aqimi salaa ñëwagul. dëgg la taxawal julli moo tax. dëgg faw fa la ñuy tàmbale dëgg la buñ dee nettali nag ba mu ko ne mhm. jàngal. Mhm. te mu tontu ko ne ko ma ana bi qaari man habitu mooy jàng daal. lu ko Jibril def daf ko bës. Mhm. daf ko bës ba mu xawa a sonn. mu bàyyeetu ko mu nooy neetu ko iqra mu tontu la mu tontu won ak sagom su rëy soosu li jibril beusat ko ñettel bu mujj ba nak ci la metté wax nañ sax ni xamna ba mu ximeliko nak may ko bu mu fexal la ka nag wax nak bu jëkk ba iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqa al insana min alaqa iqra wa rabbuka al akramu alladi allama bilqalami allama al insana ma lam yaalam waxta fa chaxch ba mu ko waxee loolu rek ni mes waaye alayhi salaatu wasalaam ci gàttal daal foofu la tàmbalee moo tax ku bëgg mm-hmm. doon mm-hmm. ku tekki mm-hmm. foog nga tàmbalee ci jàng ndax maam sunu aadama alayhi salaam mi ñu meññ ñun maam sunu aadama mi ñu meññ laa wax ndax boo toppee am na ñuy indi aadama ci anam yoo xam ni déedéet mm. ñun sunu maam aadama mi ñu bokk moom e, xam nga lu ko fal mm. du jaamu yàlla jaamu yàlla falu ko de mm, ndax bu dee loolu malaaka yi ñoo ko dàq jaamu yàlla fuuf ñoo ko dàq sellal waaye fal gi ko yàlla fal mu nekk xalifaam ci kaw suuf xam nga lu ko lu ko fal lu ko ko may xam-xam jeex na tàkk xam-xam te xam-xam ku jàngul doo ko am. dëgg la. te mën nga wax ni yàlla ko jàngalal boppam. ndax malaayika ya nga xam ne sax ñoo doon xaw a diit diital. ci fal gi ko yàlla fal mu nekk xalifam ci kaw suuf. ñoom dañoo tudd seen manin ñoom malaayika ya. maanaam dañ ko waxaale ca tawat ga. dëgg la. wax nañu défaut yi doomu aadama àndal. atajaalu fiiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ما شاء الله allah ñun ñi ngi dëkk ci ci la sabal duñ nga bëgg fal ci kaw suuf ko xamni xex kat la fa dana fa tour deret dana fa yàq dana fa indi bañante ak ay noonoo macha allah sunu borom ni leen nag comme xam lu ngeen xamul maanaam xam lu ngeen xamul لا جملن سين خلات دملن دون يغل رك وايي دوغل بي مام داونا وعلم ادم انك الاسماء كلها يالا نك جانغال كو خمال كو موكو خمال بوله كو ملائكه نك لو ملني تيست بو ملني ديفال اكزامين كيو يلا ادم جالا نك خليفه موتاخ جانغ مو نوم نياك تي تيونو يمو اندليت نانكو كو جوخ رك دغرا دغرا امنا سولو سوما ديلو سي رك دامي بوغ ñu taxaw tuuti ci li nga xam ne xoolal xam-xam bu rafet boobu allah yal yàlla wéral sa baat gën a leeral sa xam-xam allah jàpp nañu kon parcours lu am solo ci doomu aadama la jaar-jaar lu am solo la naam yàlla dina roof loxoom waaye lu bari mën nga ko ci jële defaroo ci macha allah mooy firne lu ñu doon wax sànq rek ci yow bu ko defee ma bëgg xam lan moo la boolee cheikh radiyallahu taala radiyallahu <laughs> ah, mën naa ni de mën naa ni dama judd ndax dama gimbi rek xam leen wallaay ndeysaan rek xam leen hmm. eh, am na sax loo xam ne foog ma dellu ci ginnaaw tuuti. ayca mooy. Mm-hmm. xam nga jaar naa ci jàng métier. waaw loolu dama ci ñëw tuuti rek. waaw li ma laaj ci taraxe bi moo tax ma am ku ma bëgg tudd. kon ñëwal ci métier bi parce que man am nga métier. am naa métier kay. parce que gama gis ne ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi ci écran yi wala ñu ngi feneen sax tànt yi rek mooy seen métier mais yàlla def na ni yow da am sa métier boobu. am naa métier. di dagg di ñaw. bu baax sax. loolu nu mu ma ci formé. Wa. Qui formé. am diplôme ci couture coupe ak ñaw. te France. Mhm. famille bu Jean Daroux. Hein? am diplôme ci la bokk ñu doon ko wax ku baax ku sell. alxaaji mbay il ci jàng métier mi dama ko daan booleeg daara ji. Hmm. su ma daan xëy nag. Hmm. booba Oustaz Malick mi ma la tudd. jóge na cees ba ñëw fii ci bopp. dama daan xëy ci moom nag jëri bind. bu su ma masaan jël bind nag ba pare. laay soog a ñëw. Hmm. dugg ci atelier bi. neexoon na lool sax def naa ko lu yàgg sëñ Modou Marème Touré. ñëwaat Gueule Tapée ca kër góor gu baax gu ñu wax alaaji gànnandoo yi yal yàlla dolli ci moom leeral kii ngërëm ca gël tàppe bëgg xam-xam mm-hmm. tax mu jël sëñ du Marème jox ko ci wàll ci këram mm-hmm. foofu ñu fay dem di fa mottale sunu àll bu di jël bind di ko booleeg fa tabaarakàllaahu micc mi ndeysaan waaw ndeysaan bu ko defee nga def boobu maanaam muy sa métier nga def si sa farata yëpp macha allah ba mën ko mais teewul yaa ngi ba tey si tarixa bi macha allah. àddina di dox di dox ba yàlla booleeg laak ku tedd ki nga xam ne mooy almaktub. radiyallahu taala radiyallahu yoon woowu nga tàmbalee ca atelier bi ba ci moom. Hmm. boo ñu ko doon nettali. su ma la ko doon nettali uh-huh. dama naan boole gi ma yàlla boole ak almaktum dafa jiitu yooyu yépp ci naka waaw kay euh, sama yaay moomu ma la ne Tiwaawan la dëkk sëriñ la kër si Sy radiallahu anhu ba ñu koy dénk sama papa di ko ko may sëriñ Babacar Sy lañ ko bàyyale ca Tiwaawan lañ ko may benn mbedd mi rek la boo jógee gaar ba mhm. tàllal won gaar ba gannaaw mhm. topp tali bay ñëw mhm. boo ñëwee kër sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu féete la sa nijoor jumaa ji sa càmmoñ nga continuer teg ci kër Amadou Bouya Gueye continuer ba fañ daan wax kër Alima. Mm-hmm. boo jéggee angal ba. Mm-hmm. nga yéen nga cay teg mooy fi sama yaay dëkk sama kër maam. sama maam boobu nag. Mm-hmm. nga xam ne moo sanc foofu. jiitu na fa sax maam Haji Malick radiyallahu anhu. fa ko maam Haji Malick fekk. macha allah xam nga kañ la ko sanc foofa. 1611 fekk nañu Tiwaawan. macha allah waaw. ndeysaan. sama nijaay El Hadj Boubacar Guèye. moom mm. sëñ Cheikh nii la defoon. moo ma daan wax naan kaay ma wax la ngay bind. Mm. moo ñu xamal loolu. d'accord waaw. d'accord moo tax ma ni. d'accord sama doon ci li ma booleeg almaktub mën naa ni judduwaale la. judduwaale la ndeysaan waaw judduwaale la ndax dama dama gimmi rek yem ci ñoom. wallaay ndeysaan <laughs> waaye yaay maam nit juddu na si béréb walla ci askan wala ci kër gu mag te demewu ni secret bi lan la lu nga jégué ko ma sha allah té dañ naam bari nañu ko waron waaw xam nga sama mak la wax de sama mak, ki nga xam ne maa ci mom waaw mi ngi fi ci Kër Massar xam nga kuñ ko ko sama bay tuddé waaw kon man juddu naa fekk sama bay ak maktoum di and sama mak bi nga xamne ma top ci mom Cheikh Ahmed tijani gey mi ngi fi ci keur Massar ndeysaan maa ci mom macha allah mhm. kon mhm. mën naa ni yagna yagna te gën na fe yàggaate noonu it ba tey dëgg la nax euh mak ñu daan wax ni goni goni. Mm. Mm. gone gooni maanaam gone da ngay wax ak moom. dëgg la. te gone gooni rek mu xam. dëgg la. du dëgg. dëgg la. te dafa am benn xalaat bu am solo. Mm. sama waajur waxoon ma ko mais ci wolof. mu ne woon lan. njàlbeen xam nga njàlbeen. njàlbeen mooy début tàmbali. bu doon waxtaan ak mujj. ak mujj. mujj. waaw xam nga mujj. mooy mujj rek la ngay mujjee. jeex na kon lu ko mujj digal dana ko dégg. Hmm. njalbeen a ngi dëgër bopp nag yaay imaam. njalbeen bu doon hmm. waxtaan nag mujj lu ko mujj digal dana ko dégg. Hmm. moom dafa dëgër bopp ndeysaan. dana dafa dafa dafa dafa war a dëgër bopp. day xëcc moom day defante. parce que parce que gone. gone. professeur Sakhir Thiam. di koy dégg. waaw xam nañ dafa ne gone mooy ku ne. mooy ku ne. ku ne mun ngaa doon ku ne lu ne ngi ci moom di yëngu ngi ci gone njëlbeen nag mu ne ma mooy ndaw. dëgg la. mu ne ma waxtaanu njalbeen nag mujj waru fee jóg ndax mooy ndaw. ndaw ndaw mooy njëlbeen. mag mooy mujj. dëgg moo tax mag. Mhm. ndaw war a ñemeñ. Mhm. jotaay yu mag dikk dëkk lu muy wax. dëgg ñun ñi ñu yàlla dogal ñu meññ ñu. Mhm. dañoo jaar ak ñun fu nu mel. allah. yàlla dogal it. Euh, gis nga ba ma nekkee. ndaw lu tuuti di jóge fii di gàmmu ji Tiwaawan ànd ak sama yaay mm. ak sama papa mm. booba maa ngi war a toll ci ay ndax man bi sëñ kër di nelaw mm. radiyallahu anhu juróom-ñetti at la am li ma fàttaliku ci moom daan naa fàttaliku daal ni comme mbeddu kër ga benn la suñu ma saan daan naa jékki-jékki rek yëg benn jógandoo ak benn bruit am na hmm. sama benn maam bu baax bu ñuy wax maam Kumba Ndiaye. Hmm. yal na ko yàlla dolli leer maamu alaaju dut kenn mbay la. wallaay ndeysaan maam Kumba Ndiaye boobu la dama daan jékki yi gis ne dañ may jël rek boo takk ma ñu ne ah góor gee génn man loolu laa ci am góor gee génn nakati booba sëñ Babacar moo doon génn si sifle yeeg alkaati yi. Hmm. maa ngi fàttali ko yooyu. mais taxul sëñ Babacar ci photo laa ko xam. waaye daan naa maa ngi fàttaliku yooyu nag. dëgg la bu ñu ginnaaw si gi nag. su may gàmmu si nag. Mhm. gis nga bu ñu wàccee ci saxaar bi. di dem suñu kër. watiir xam nga watiiru fas yooyu. sunu bagage yi ki yooyu ëmb ya. fa lañ may teg ca kaw ëmb ya. ca kaw ëmb ya. waaw nga toog fa. ñëwee ba ci bunt kër suma ma wàccee. Hmm. wàññeeku dem kër sëñ Cheikh. Hmm. kër sëñ Babacar. xam nga ku ma daan dalal foofu. waaw sëñ Moustapha. ñu daan bokk benn lal buñ ñu daan tëdd. macha allah macha lan nga lan nga taataan boo boo daan jàkkaarloog moom. jàkkaarloog sëñ Cheikh. waaw euh, daan naa yëg bu baax ni maa ngi janloo ak nitu yàlla wax dëgg yàlla daan naa ko yëg. daf ma yéemoon sax moom daf ma yéemoon. Mm-hmm. daan naa yéeg ni. Mm-hmm. maa ngi jàkkaarloo ak nitu yàlla. Mm-hmm. di teewlu nag ya daan wax. ya daan wax it du ko yemale ci déglu ko rek noonu dem mais dama ko daan dama ca daan boole di dund la muy wax. di ko dund la muy wax. waaw. ba yàlla subhanahu wa taala mu may ma werd boole ma ak doomam ju baax ji di Serigne Moustapha macha ak al oustaz xaaji xalifa mbay bu alxaaji mbay doon da mbay wallaay dëgg la boole ñun ñaar ni nan dem ci Serigne Cheikh mu mayandoo ñu werd fii ci këram gi ci relais hmm? waaw googu kóllëre kóllëre dootu ko gën a màgg yàlla doxale ko suñu diggante mhm. ñu miin nag mm. keppaaram miin daaraam miin ay njàngaleem mhm. hmm? ni mu ni mu ni mu ni mu duddoo nii boo daan toog jàkkaarloog moom mu daan wax ay wax ak ni mu duddoo noo koy jàngatee nooy jàngatee société bi selon sëñ Cheikh radiyallaahu taala anhu na mu daan waxe ndax ñu ngi ko daan déglu ndax ñu ngi koy dégg noo koy jàngate ni ma koy jàngate mooy ak ni société bi tëddee ci ji jamono waaw xam nga man dama naan dem na demul dëgg jëmm jaa dem waaye moom jugu fi ndax lawoon ca moom a ngi nii janook moom hmm. ci ay njàngaleem yoo xam ni hmm. bari na yu mu ci wax hmm. yoo xam ne sax fekk na ko dem ñu dem ba jamono ñëw dëggal loola mu waxoon dëgg du dëgg firnde bi ma la ciy jox mooy bu mujj bii ba tey ñu ngi ci mbas mi génn guñ ko yàlla nañ ci génn ak jàmm waaye ba muy toog naan ci mbooloo ci diggu Tiwaawan walilaahi junudu samawati wal ard walilaahi junudu samawati wal ard nee na soldaar yi ci kaw ak asamaan ak ya ñu gis ak yëpp yàlla leen moom mu ni foo déggee baat boobu nag dawal boo déggee yàlla tudd soldaar rek dawal dëgg la dawal ndax nee na mën na ñëw di lu ne mhm. mën na ñëw di lu ne mhm. dem ci ba ne mën na fekk sax ba tudd baatu virus mën na fekk sax virus bu doon nelaw mhm. te boobu corona ñëwagul de mu yee ko nga xam ni bët sax mënul mënu caa tege mu yee ko muy dox di faagaagal di yàq ci àdduna bi loo xam ne malaaka sax mënu koo yàq xam nga loolu ba ma koy wax lii ñëwagul Mm-hmm. est ce que loolu mu doon wax wol ak li li li li li ñëw mm-hmm. hmm? Mm-hmm. noonu nag la ay waxam mel ndax mas wax ni masuma len wax wala du len wah wax mukk lo xamne ne jamono dina ñew wedd ko lolu mo wax nako ko waaw ndeysaan am solo bay bu ma bëggee woon wat ci yow mam ci bo mako maye ndax gis nañu nga dal lool gis yar wi lool macha allah est-ce que ci ci jikko bari na li lay irrité wala di nga yéeg benn niveau wala dinga dinga mer wala dinga ban façon nga jikko boo doon qualifier sa bopp. <laughs> waaw ku dul mer amul. <laughs> waaw léegi yow mhm. par exemple xëy na ñun comme ñun dëkkuñoo ak yow. Mhm. gis nañu la nii mais bëggoon nañu xam. lan moo lay tempéré ban ban façon nga waaw xam nga ku mel ni kii nga tudd ku yaroo ci keppaaram wallaay ndeysaan wax naa ne ni faw nga am yoo xam ne da koy jële ca la ngay jële ca moom di ko dund di ko dund dëgg loolu ca la bokk d'accord yar mm-hmm. boo gisee tubaab wax éducation de base mm-hmm. ndëgg dem mm-hmm. moom lañ lay wutal la ca des nag mhm. yaa koy mottalil sa bopp macha allah waaw ñu gis ne euh, loolu firnde boobu am na ba ci façon gu jàngaleem pédagogie mhm. dafa am loo ci jël ñu gis loolu di lawtaan di lawtaan ba ci mbind mi ngay mbind mu nekk lu am solo loo xam ne ñu bari dañ ciy taataan loo mooy wax ci diggante pédagogie boobu jàngale boobu ngay def dafay feeñ booy def presse booy toogee ci télé di wax na koy waxee ak dëggu ga ak fa nga ba maanaam fa ngay sukkandiku. waaw xanaa xam nga dañu ni dof ba. dof ba dañ ko ni noo tudd. waaw mu ni Samba Diop. Samba Diop ko noo sant mu ni waxaale naa ko. ne waxaale naa sant waxaale naa sant bi. xam nga ci biir li weesu. Mm. xam nga ku ci keppaaru miin naa keppaaram miin njàngaleem. mais dañuy détaillé rek. waaw te comme damay dund loolu. mais ci foofu yoon woo rek laa war a mën a jaar. wàccoo ko benn yoon. fasuma ko yéene incha allahu taala jotaay bi permettre na la aussi nga wax ñu inspiration bi ngay bindee parce que macha allah boo bindee gars yi dañ ciy taataan lu bari macha allah naka la inspiration bi di dikkee ci yow. ah inspiration nag moom mën naa wax ni sunu borom moo koy baaxee jaamam. inspiration mhm. mën naa wax ne sunu boroom mhm. moo koy baaxe jàmm mhm. xam nga dafa am beneen wax bu mu wax ndax dafa wax ni doy na échec nit dund ba xëy wuy ji boroomam en tant que jullit te mësul yëge benn yoon fu mu amee jotaay ak boroomam bi ko bind doy na échec nit ku ne gën fee rawati jullit war nga mën a am jotaay yoo xam ne da nga daf lay wóor ni lii sa diggante sa boroom la te yéen a am jotaay dëgg hmm? déggoo ba dégguloo sax boroom xam-xamu tubaab la hmm. Victor Hugo lu mu wax hmm. je dictais j'écrivais parce que tolluwaay la waaw inspiration nag yàlla subhanahu wa moo koy baaxe jaamam rekk may ko ko dëgg am na solo waaye ñu toppaat pédagogie boobu rek euh, moo jur li nga xam ni mooy jigéen ñi nga dajale ñuy jàng wax dëgg yàlla te ku ne xam na ni taluñu ko woon ñi ña nga woon ca xew ya ñi ña nga woon ca njaay ma ñii ña nga leneen ak leneen yàlla def nga def loolu jigéen ji ci gis seen bopp di ci gën a jege seen borom nga won leen yoonu yàlla macha allah yàlla na ko yàlla fay. amiin euh, ñu bëggoon nga sànni ci tuuti ci loolu waaye it nga sànni ci sa ñëw. biir RTS. parce que loolu itteel nañu ban yoon nga jaar lan moo la indi ba nga xam ni tey ñu ngi lay déglu à travers télévision boobu muy RTS. waaw bu dee ci wàllu jigéen ñooñu bi yàlla dogalee ma taxu amoo siis dëkk fa la ma fa jëkk def mooy seetlu gu ma seetlu woon ni soxna yi amoon nañu ay joti euh, xam nga nuñ koy waxati ndey dikkeeg yu demee noonu daal ak i ndeyale ak i def seen tuur yoo xam ne dañuy teg seeni i musique dégg yu mel noonu xam nga xewoon na ci jamono. waaw te du te sax fépp la woon yaatu woon na. du dëgg. Mm-hmm. ma xalaat benn xalaat. Mm-hmm. ni fekk may waxtaan bis ak Cheikh Aliou Ndao écrivain ñuy waxtaan ba mu ni ma euh, gis nga baat bii ñu wax laïcité. ma ne ko waaw mu ne ma wolof am na ko <laughs> mu ne ma wolof am na ko baat bi tubaab di wax laïcité mu ne ma wolof am na ko mu ne ma xam nga mooy ci wolof ma ne ko ah, mu ne mooy dëkkandoo jàmm ca gën rek baat boobu nag dugg ma lool ma ma nangul ko ko yit ma ne kon te fi ma dëkk ma tàmbalee fee leen mooy sunu soxna yi te ma seet nu ñu leen jéem a dajalee tudde leen jox leen tur woowu ñu tudd dëkkandoo jàmm ca gën ma dajale leen dama leen di dajale nag ku fa dëkkoon ca nga bokk amoon na ku baax ku ñu dëkkal chrétien la eh, ki nekkoon président bi ci dëkkandoo jàmm ca gën boobu mm-hmm. jullit la moom vice présidente bi mooy chrétienne bi confrance bi ma fi leen jëkk a defal euh, ma ñi leen nañ ko def ci Isa ak Mariama yàlla defal ñu seen ndam buñ ci jógee ma wax ni comme man lañu def foofa ma nekk seen imam wante hmm. ñu ma ko gën a mën fuuf ña nga te gën ma ko tabarakallahu jekku mm-hmm. waaye yàlla dogal ñu tudde ma seen imaamu ratib ma wax ni mm-hmm. comme dañoo zakat house bi ñu tabaxalee jàkk mm-hmm. ñu tabax beneen jàkk pour jigéen ñi ñu fay julli seen jumaak yooyu ma gis ni comme julli jumaa waru jullee seen kër sax xëj na moo gën mais comme yonent bi ne woon na bu ngeen leen gisee ñuy dem jumaa bu leen leen ko tere ca jàkka ja ma ne kon tee ñoom seen fi ñuy jullee ñu ut ko ñu def ko muy daara comme ça ñu fexe ba dajale leen fa comme nangu nu ñëw wuyu ñu fay jàng alxuraan jàng fa seen euh, fiq loolu mooy mooy mooy falaa ko jëkk ubbee tàkkusaan bu jot ba timis nag ñu nangul nu ko ndax dañoo baax ñu ku baax da ngay nangu lu baax bu ñu fa dajaloo nag ma ut nag ay jàngalekat yu baax ñoom oustaz Ndiaye ak oustaz tabaarakallaahu ñooñu leen ma wax leen ni leen ñuy dajaloo nag di jàng fer ijj mm-hmm. mën a boole te bañ fay nekk di jàng bañ koy door a tàmbale xamuñu woon alif ak baa mm-hmm. waaye léegi léegi gën na fee yaatu de jël téere bi tijji jox leen rek ñu jàng ko footi ji yemuñu ca téere boobu ñu wax Laxdari dégg nga ko. dégg naa ko bu la neexee. Mhm. ñëwal. macha allah nga jël téere bi ci boppam. jox ubbi rek jox leen. déedéet doo ubbi da koy tëj teg fële. Mhm. ñu nekk ñaari mbooloo. ñii di jël arab bi ñii di jël wolof bi. ba foofu. ci kàttanu yàlla. te gën na fee yaatoo noonu. nga ñëw su dugg RTS. Mhm. sa dugg RTS. sama dugg RTS. sa waaw sa feeñum <laughs> eh, li ko sabab. Mhm. mooy. Mhm. dégg nga rajo Dunia. waaw ba muy soog a ubbi. sama mag ju baax. Mhm. soppan ma lool it ma sopp ko lool muy El Hadji Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Diop bu Ngunta. mu ñëw ni ma. rajo dafa ubbi ñu koy wax rajo dunia mhm. benn baas jaañ moo ko ubbi yàlla ko yàlla dolli leer daal di wax sama soxna ni ko dama bëgg nga jàppale parce que booba mhm. man nanguwuma woon a wax ci rajo mhm. dama nangoo dama dama tànnoon rek denc sama bopp noonu Cheikh Diop Cheikh Tidiane Diop mu baax mi yàlla na ko yàlla dolli leer na waxtaan ak sama soxna ni ko jàppale ma ci nag ma waxtaan ak benn baas dama ko fa bëgg a yóbbu parce que nii may dégg léeg-léeg bu ñu toogee boo ko cuxee ñu waxtaan ci wax yi war na mën a jaar foofu liggéey ko ba mu ni kocc mm-hmm. ba ñu wër ma ndomb nag mm-hmm. ca la ma jëlee yóbbu ma ca benn baas benn baas defal ma essai mm-hmm. essai ba it ma ne ko alaaji Cheikh kat yaa ma fi indi waaye da yow micro bi yaa ciy jëkk a wax ba noppi nag ma wax ba mu waxtaanee ba ma waxtaan benn baas ne ko kii duma ko bàyyi mu dem yàgg fa nag yàgg fa yàgg fa ba sama dëkkandoo bu baax bu ñuy wax kan Mouhamed kan fële ci amoo kaat ku baax ndeysaan nekkoon kilifa gu mag ci Senelec ni ma daal mm. damay fexe ba am na sama benn wëllëre bu nekk RTS euh, dama lay booleek moom mm-hmm. ci directeur u fii la dama jàppatul tur bi ndeysaan mm-hmm. ku baax la nag ndeysaan ndeysaan xam nga man ba léegi ni ma mel RTS rek ñaare dugg-dugg yi bariwul. wallaay def sama émission xet na génn. mu jaar ci moom na mu ne ma naa ñëw def si. test essai. ba ma fa demee. Mhm. booba Demba Dieng. Mhm. moo amee woon bureau kii. Demba Diop. Demba ah, amul Demba Dieng bu fa ne woon. Demba Dieng xëy na naa ne. Demba Dieng. Mhm. booba mm-hmm. mu déglu ma mm-hmm. daal di bind benn kayit këyit yónnee ko directeur d'accord ko kii bu ñu ko bàyyi mu dem d'accord te lépp loo xam ne yelloo na ko mm-hmm. nañ ko ko jox kayit ga ba tey ma nga ma denc lii moo ma dugal RTS macha allah te boobu ba tey wax dëgg yàlla ñu ngi lay seetaan ànd ci kontaan te bu rëy bu ko defee bu ñu weesoo foofu gis nañu ne siiw nga am nga ay soppe yu góor wala lu jigéen kër ga ay soxna lu war la ay soxna ay soxna yu bari hmm. lu war la de lu leen diine sant la ay soxna waaw xanaa nga yem fa la diine yem loo rek waaw muy ñeent waaw kañ yow boo doon digalaatee noo noo loo ñuy digal ci loolu wala ñiy jël nga digal leen ñu lan ñu yemale wala ñu jël lu ñu mën wala ñu jël lu ñu mënul wala rëq-rëq yi am ci néegu sëy yi mm-hmm. te lu ci ëpp day jóge ci ay kujjeek wala yenn yi sew sewaan yi mm-hmm. ban conseil ngay jox ñi nga xam ne dañu lay bàyyi xel oustaz mu baax mi nee na mm-hmm. <laughs> mu ne ku mu ku am benn soxna yem ca mm. <laughs> mu ne dugg nga musiba. ah mu ne boo amee ñaareel. Hmm. musiba dugg na la. amee ñett. Hmm? boo amee mu ne boo amee ñett. Hmm. Euh, boo amee de xaw ma daal nu mu ko waxeeti daal waaye daal boo amee ñeenteel ba daal. nee na musiba génn na la. <laughs> yow ban moo la ci daal ci yooyu. man. Hmm. fii ma toog nii. Hmm. benn soxna la ma yàlla dénk. kon musiba daal na. déedéet daluma de <laughs> da daluma mukk. <laughs> Hmm? jërëjëf yaay xam nga li ma la ciy tënkal rek mooy. waaw. Euh, booy wax. di waññ. ci benn ngay tàmbalee. waaw. waaw. benn. ci ngay tàmbalee. boo ko bindee un mm. du moom ngay bind. Ah, mooy benn. mooy taxawaayu góor. benn waaw. waaye ma tegal la ci. waaw. xam nga taxawaayu jigéen lan la. mooy zéro du xam nga zéro. bu tekkiwul tus nag. zéro hmm. boo xam ne tekkiwul tus. mooy ñun nii. ndax ya ci yàlla denc dafa bari. moo tax yàlla bëgg ko ko ko dencal. l'infini hmm, ki ko koy dencal nag. waaw moom zéro boobu. waaw dañ koy denc ci ginnaaw bu ko defee rek un day daal di dix jeex na. non yaay maam. nga wax neex na macha allah na ko góor ñëpp déggee noonu. Mm-hmm. jigéen ñi ñëpp déggee ko noonu ànd bi daal di rafet macha allah. waaye avec le recul gannaaw ba nga ganee àddina ak la nga dund fa nga jaar ba fi ñu toll nii nga gis société bi ni mu tëddee. ci xale yu ndaw yi muy jigéen wala muy góor muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi muy ci sëy yi muy ci mbokk gi muy ci waajur yi lan nga seetlu loo xam ne lu jara jubbantiwaat la soxna Aïcha yi jara jubbanti bari nañu dëgg la mhm. yi jara jubbanti bari nañu mhm. xam nga mhm. xam nga fu yi tàmbalee Moy na mag ña daan def yu ci bari dañ koo bàyyi moy mm-hmm. mm-hmm. hmm? pour gattal ak jëllu yu bari ki jog ne maa ngi takki jabar mm-hmm. fofu la yef ye ya commencé Yakko. ki jog ne maa ngi takki jabar maa ngi takki jabar fofu la yef ye ya commencé xajame maa takki waaw maa ngi takki jabar hmm. xam nga fu nekkoon di njaal biir nga xam ni fa ngay commencé yar mooy maa ngi tànnali sama doom yaay waaye na fekk kii tànnali doomam hmm. yaay hmm. préparé boppam ba nekk baay boo xam ne bu jom ñëwee xelam war a dal ci baay bii kooku mooy jóg pour tànnali doomam yaay gis nga fa la yar ba tàmbalee. dëgg moo tax wala maa utar bi yéen ñi yàlla fii di xam-xamu wàllu yar. Mhm. dañu ni yar fu muy tàmbalee fan nga jaakaar ni fa la ñuy tàmbalee yar nit. te fan lañ koy tàmbalee yar. tànneef nday foofa sax. sori na ah, jegeñ na. ñoom xam nga lu ñu wax. Mm. juróom-ñett fukki at di nga ko yar sa doom laata muy judd. quatre vingt ans. di nga ko yar sa doom. avant muy judd. kon di nga xool ca maam ya ba ca mamaat ya mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. moo tax mag ñi nag daan wax ne ah boo ca tolloo mm-hmm. ñu ne ah demal dugg néeg diw booba seet nañu ba gis fu sori te lépp tabarakallahu baax waaye nag fekk na booba bàyyit mel na mu war a mel ba wóoloo jur waaye musiba mi di ko indi mooy euh, jur yalla na ma yàlla baal waxin bi yalla na yalla bal limay baal bëgg wax mais dafa bari ño xamni dañu dañoo rëcc juddu ñoo jaar ñu ci yoon dañu rëcc juddu parce que bu nday mana bay su parewul ci boppam ndey parewul ci boppam kenn parewul waaw paré pa bu ñu parewul ci seen bop kèn ku ñu sa bakkat rek nga sedd kini ma ngi takk jabar xalaatul doom bi war a ñëw mais bakkanam la sédd mm-hmm. bokkul ak kenn maa ngi jóg utili sama doom yaay mm-hmm. kooku gis nga fa mu tàmbalee d'accord waaye fekk na mu pare ci boppam d'accord diggante ñaari baat yu yàquwul nag mm-hmm. dañu ni doom bay juddu màgg am chance su nekk sang mu ngi juddoo ci diggante ñaari baat yu yàquwul doom baat yu yàquwul yi mooy yan baat bi ndey di sàmmal doom baayam ba du génn baat bu ñagas ti ko dugal ci nopp baayu doomam ak baat bi bàyyi di sàmmal doom ba du dugal ci nopp yaayu doomam baat boo xam ne mën na koo perturber baat yooyu fekk ñu ngay rafet mhm. diggante boobu bu fa doom juddoo mhm. am chance su nekk sang mhm. waaye bu bàyyi jóge jël baatu ba wax ko ndey ndey gàddu kuur wuti ko ku ne digg gën a ñaaw la sama morom baat boobu diggante la ñuy laaj lan la fi doom di wut si lu dul mhm. seede si kër gu tas wala yaasu billah yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci si jaam yëpp waaw bu ko defee yaa imaam gis nga loolu am na solo jàngale la waaye ñu bëggoon nga ñëw ci li nga xam ne xëy na di nga utiliser internet di nga utiliser internet man nag xale yu loolu ñuy wax baatu seer xaw ma. waaw seer mm-hmm. na. jege naa ko loolu. <laughs> waaye bëgg naa tamit nga wax ma ci sa parcours lan moo si nekk les maanaam pàcc bi la gën a marqué te neex la lool ak it li nga xam ne xëy na tey boo doon bàyyi dara ginnaaw danga koy bàyyi ginnaaw muy ay ay regret ndax ndax am nga ko lu ni mel. nit ku ne am nga loolu. nit ku ne mm-hmm. am nga loolu ndeysaan am na sunu benn nañoo xam nan waaw mm. dafa am suma benn soppe mag la ci ñun ñu koy wax Mouhamed Siis Siis mm. mm-hmm. Mouhamed Siis Mamadou Cissé magu eh, imam Ablaye géey bu bari ñi dafa safoon xorom nag daan toog ba jékki-jékki ni man daal leen rek moo ma metti mooy dama dama teel a juddu dama <laughs> mm-hmm. xam nga

pour dolli sa bop xam bu baax sax jarna wuti ba bu baax sax wallahi ndeysaan waaw wallahi ndeysaan mhm. am amna solo legui ma bëggoon rek nga denk ñu dara bala ngay ñuy tecc rek parce que ku ne xam na ni adina jaxaso na ñu waxat ko rek ñu delu ci yalla defena moy defar mbébét bi nga am nga xam ne bu doon sa sago mbébét booy teg la euh, bala ñuy tàggoo rek ñëw ci li nga xam ne rek mooy sant yàlla ak jaamu yàlla piir bi nga xam ne yàlla def na nga bind ko jagleel ko askan wi. da nga laaj sànq baatu inspiration. waaw. ma ne la yàlla koy baaxe jaamam. dëgg la man nag bokk na ca la ma ca inspire waaw ñaari fuñ ma ko laajee nag lii may bëgg a wax laay wax. waaw ma li ma ciy tontu. ba tax ma am inspiration boobu waaw neexul dégg waaye am na. Mhm. moy lan moy mhm. dama ñewante suñu borom dama tok ba ñeewante yàlla te ñun ñepp dañu ñaan mu ñewante ñu bëggal ñu bopam yërëm ñu waye man ma tok ba ñewante nga xam nga luma ko ñewante mm. ma wax ni ci digge ci ñaari baat daal lama dikke xalaat bi dikke mm-hmm. baat bobu wolof di wax def ak ak defal defal bo déggee ku ni diw lima def hmm xam nga loola dafa diis baaxul. xam nga neexul. neexul waaye boo dee ku diw li ma defal. loolu nag. teraanga rek. ma ne nag yàlla ku mu fi def defal na la. dëgg la am na wala am na. ku mu fi def. defal na la subhaanahu wa taala defal na la. li ma ko ñeewantee nag subhaanahu wa taala mooy. Mhm. sëgg yi ñu sëgg di jàmbat yi mu ñu def. Mhm. ba mel ni defaluñu dara. Mhm. te yi mu ñuy defal moo ëpp fuuf yi mu ñu def mhm. moom laa ko ñeewanteel mhm. tax ma tàmbalee woy wi noonu ni ko ni ko defuloo kenn luy tee muy toog di la wéetal defoo ko kenn di la sant ak di la jaamu lépp luy ngëneel defal nga nu ko dafa dafa dul teggin rek nag ñuy toog di la xaar tok nan yalla baxna yalla ya do gis deureum te du te yàlla di baax hmm ne ko dafa dul teggin nak ci ñun ñuy tok di la xaar te xorondom yi xam nga xorondom wa ñom ñi jité non wa di bagante di yanu sen pep yi di ko riine wa yow en tant que nit ñuy hmm ti ray baat hmm. lebatal hmm yegg sax ba di la hmm ma ne ko yàlla jéggul ñu yooyu jéggul ñu yooyu salaam may waxante ak moom damay wax ak moom may wax ak moom ni hmm? ko nag njàddiri xam nga njàddiri dëgër bopp am fit mu ngoog mooy njalbeenu gaaf gi nu xës not nag gaaf nañu hmm. gaaf na xës nañu not njalbeenu gaaf gi ñu xës not ba noppi nag sëkkatul nu hmm. ñuy soobu ci xeeti njaaxum boo génne ci njaaxum dugaat ci njaaxum waaye lépp yàlla yi baax rek mbaaxam googu nag moo tee ñu ne jànjang jànjang daan waayu gannaawu metti la hmm? kon jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla alhamdulilah yaa di si waay bi salaam loolu daal mhm. laa na xéewal yi dañoo bari bokk na ca lamani woon mhm. ki toog ba yàgg mhm. ni fu toilette nekk dama bëgg tuur ndox ñu wan la fan la nga dem tuur ndox génn fàttee sant yàlla xalaatoo ko sax te xéewal bu rëy la la defal ndax heure boobu nga doon tuure ndox nit ni yow a nga hôpital ñu di ko dimbali pour mu pour mu tuur ndox mënu ko yow xéewal boobu yàlla defal rëy loolu nga génn fàtte koo sant ni rek c'est normal hmm? jërëjëf am na solo. du dëgg. waaye ci yooyu nag laa doon seet nag ba taalif loolu. waaw Ah, ñu bëggoon nag ba tey ci biir ndénkaane yooyu ak cant googu rek nga bàyyi laat ñu dara mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci buntu àddina mm-hmm. ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yàlla teral na leen ba ñu fàtte ko jël sa doole di ko utiliser ci kaw ñu seen doole ñu woyof doole yàq-yàq yi def-def yi ñi borom sajaada yi ñenn ñi si ñu ñu ko sañ a wax xëy na di société bi di jaxasee ko yàq moytul diw diw nii la mel diw nàngan ku mel ne ku gàtt kee ku xees ki société bi jaxasoo jaxasoo boo xam ne ñu néegante waxante lu bon ñuy néegante yàqante lan moo manqué fu ñu ne ñun loo ñuy dolli li manqué Aïcha lenn rekk la mooy jikko hmm. ba tey bu la neexee <laughs> ndax ngëm yàlla bu xiibonee mm. tamit lu ne mën na caa juddoo jëf ko waaye jikko bu feebaree lu ne mën naa am lu ne mel tax na tudd naa léegi Cheikh Aliou Ndaw yal ko yàlla dolli wér bindkat la mm. li naan mag mat naa ba cim réew mag mu mel ne moom ca la xam nga dama lay nettali rek benn mbir moo xam ne moo ko wax ca lu mu bind tudde ko nan sotle Sénégal du dégg nga baat bi ak wax ji nan sotle Sénégal kon moo lay wan ne am na fu Sénégal toll du dëgg mu dem ba ca biir naan Sénégal a ngi jooy fii waxtu yu tollook ñun lu tax mm. xàmmeetul ay doomam Sénégal xàmmeetul ay doomam. dëgg la. xàmmeetu leen. dëgg la. seetul ci ginnaaw tuuti rek yi fi xewoon. lan la yàq mu metti toj fii yàqaate fii. génn fii. def yu kenn xamul lu mu doon mu ne Sénégal nee na xàmmeetul ay doomam. ndax def leen yaroon ci teey ak teeylu. boole fit ak jom nangoo ñaq ak liggéey mu ni tey tiis wi gën a mag mooy Sénégal dafa boole woon ay doomam ñu téyante ni ay waaraam cim këmax mu ni tey tey ñu tasaaroo ni njaqalu toj fu ne aw xandeer dal ndox ma wal dafi làng mm-hmm. wu ci ne mel ni ma soo xam sa morom bokkatu leen xeet daara booleeti leen Sénégal ngi laaj nee na lii nag ba kañ ba kañ te dara waralu ko dudul ñàkk jikko ñàkk jikko rek mën na jur musiba mu ne kon li may tënk ci wax ji mooy te dafa laaj ñu euh, maanaam jotaayal ko beneen yoon ci tomb yii la yii dañ leen a war a def damay ay tomb laay joxe bu ci nekk benn ngoog yii dañ leen a war a def yii dañ leen a war a bàyyi yii dañ leen a war a delloosi hmm? yii dañ leen a war a def mhm. yii ñu war leen a bàyyi yii ñu war leen a delloosi bokk na ci tomb yooyu nga xam ne buñ ko buñ ko buñ ko tasee mhm. daañu xam fu ñuy jaar mhm. ba senegal mën a xàmmeewaat ay doomam bu ko defee mu ñett yooyu nga xam ne bu ñu ko euh, tëralee dégg ko euh, te appliqué ko macha allah dinañu xam fan mooy metti te bu boobaa xëy ne yàlla mën naa saafara santaat la joxaat la sa cër jox la sa wàccuwaay rafet lu xam-xam beeg macha allah disponibilité bi vraiment jar yar geeg teggin gi ñun yàlla def nañu dañu lay bàyyi xel lu bari ndax euh, loo gisul njariñ defe naa doo ko bàyyi xel ñu gërëmaat la santaat la ñu bàyyi la nga tàggoo laataa nag ñu lay jox li nga xam ne mooy pañe cadeau pañe ndogu bi nga xam ne moom la la RTS jagleel tey di joxaat si cër lu bari bari bari bari ñu bàyyi la yaay imaam nga tàggu barakallahu xanaa ni ñu ko baaxoo di wax rek tàggooti tàggoo bu dul tàggoo di ñaan yàlla wane la waatnu di ñaan yàlla yàlla nañu nangul sunu koor di ñaan yàlla yàlla nañuy jéggal sunuy tooñ di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu boole ca jaam ya mu soppal boppam yàlla na nu yàlla soppal boppam te yàlla na nu yàlla mayit ñu mujj ci loxo yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam jërëjëf soxna bi dafa noon wax ni mhm. euh, lii hadiya la tudd mooy cadeau mu ne di leen ko joxalante ci seen biir yàlla na nu yàlla nangul lii ñu joxe ca waxam jooja ndax nee na jokkalante ci seen biir dinay wàññi noonoo mm-hmm. dinay indi mbëggee la mm-hmm. te yàlla dafa bëgg ni mu ñu bëggee ñun jaamam yi ñu bëggantee ko noonu mm-hmm. te yii yëpp dafay dundal loolu te wax na ni jullit bu woor ba ngoon nga jox ko doonte benn doggatu tàndarma la yàlla jox la ca yool bu toll ni yool bi mu am ci kooram te du wàññi ca yoolam dara nga booleeg sa bos yàlla na yàlla nangu te yàlla yàlla barkeel jërëjëf jazakumullahu wa khairan yaa ko moom jërëjëf jërëjëf defe naa euh, mi ngi nonu euh, mo doon sen émission je t'invite tay ñu fatali rek ñu ngi fi nga xamni moy musée des civilisations noires euh, bu ko defé nek ci patch bo xam ne wax dëgg yàlla moom lañu jagleel suñu kilifa diiné ñuy gëreum ne waat bu baax nak fi ñu nekk ni wa musée bi gëreum leen sant leen merci à toute l'équipe di leen wax xamna naa ba beneen yoon incha